an nushra mooy teggil njabar ka nga xamante ne duñ koo njabar loolu nag dafay xaajali ko ñaari xaaj am na façon boo xamante ne bu dagan la mooy teggee njabar ci ay mocc yu ñu xam ci ay chartam ci ay garab yu ñu yoonal ci naan lem wala nàmpatal xijaama wala ay ña wala ñaan yàlla ngir mu daldi lay teggil balaa boobule yi ay mbir yi ñu yoonal la ngir njabar daldi teggeeku ci kuñ ko def ñaareel bi mooy teggi njabar ci anam boo xamante ne daganul loolu nag ci ban anam loolu nag duñ ko laaj yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa mu ne hiya min amali seytaan loolu dafa bokk ci jëfu seytaane bu ñu gisee kenn ci borom xam-xam yi muy wax ni dagan na njabar ñu daal koy dindee njabar ah lan la ñuy def bi nga koy wax ni ne lii nga wax ni dafa wuuteeg alquran wuuteeg sunna wuuteeg waxu saxaaba yi waaye tamit wuuteeg tamit borom xam xeet bi loolu daf ci nekk dëgëral njabar waaye tamit lompoñal tamit lii di fajoo alquran ngir yàlla kat moo wax ni lu mel ni lem fiihi shifaa'un linnaas alquran ji sax daf cee nekk lan lay saafara doomu adama yi kon fajoo njabar loolu dafay dugal doomu adama yi ci bokkaale yàlla ngir euh, léeg-léeg doomu aadama dana dem seeti njabarkat waaye moom mënul def dara lu dul yow mi fa dem ak moom di ngeen def yan ñaar la seytaane bi bëgg te loolu mooy yàlla lay doon ngir moom mu daal di neenal njabar boobule kon au lieu ngay dem di seeti njabarkat mu lay dollil beneen feetu beneen xeetu njabar la nga war a def mooy wàkkirlu ci yàlla ngir jàng fatiha wéeru ci yàlla yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam njaboot nañ ko lu tolloog juróom benn weer waaye dafa muñ ngir jàngal xeet bi muñ am na jigéen bu dikkaloon yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko moom de jiine da koy dugg maanaam dafay daanu na ko yàlla na ko ñaanal yonent yàlla mu ne ko boo buggee ma ñaanal waaye tamit boo buggee nga muñ amee ci aljanna mu mu tànn muñ kon doomu aadama dafa war muñ ci musiba ak bala mu bañ dellu ci njabarkat yi di jëflante ak moom ngir dem foofu foofule bokkaale yàlla la wala weddi yàlla bu mag